xale yi jigéenu Sénégal dañuy bëgg a dof wala ngelawu seytaane da leen a dugg ginnaaw Marie-Louise ak ay dara ñi fi doon xawente sutura ci internet bi Soukeyna te mu ràññeeku loolu ci téléfilm bi di Nafi jër na wàllam ci mbir mi mu ràññeeku woon loolu ci série Nafi bi doon daw ci télévision Futurs média moom su Soukeyna internet yu bëri tamit xam nañ ko ci réseau sociaux yi ndax ay vidéo ak ay photo yoo xamante ni da koy dugal say su ne ci Instagram jamono ji nag mooy def buzz ci ab vidéo nag ñu gis ko muy saaga ak menacé de mort benn xaritam bu jigéen boobu les vidéo nag xaritam bi di wuyoo ci turu Aïssa Correa moo ko siiwal ci internet bi ba internet yëpp daal ciy jot ca boobu les vidéo nag kii di Soukeyna mu ngi cay yëkkati ay kàddu yu ñaaw a ñaaw jëmale ko ci xaritam boobu nga xamante ni mu ngi ko doon menacé de mort dañ leen di bàyyi rek ngeen déglu boobu les ak bi les vidéo Saliou ku ko yaakaar doo doon dulkat wala nga yaakaar ko ñu lay tàjtee sante seen kër beneen si la ba sa kër du wax naa li ma lay wax dafa très attention ci man maram dafa très attention ci man maram defal attention ci man maa wax naa la ko ñetti yoon nag. <laughs> waa waaw ba tey waaye damay àbb yére ñoom ñoo ko wax waaye bi ma toogee de ñu ko bi ma toogee waxuñu ko te man sax yow maram wax ji dafa war doy wax ji na jeex dégg waaw kay maram merci merci pour lépp lépp lépp lépp am fit sax yow maram am nga fit de yow yow yow da man di wax nii di ma sànnante ay vocal nii di di ma sànni vocal nii may wax yow ngay wax yow maram yow waroo wax la yow maanaam am nga fit de yow ok baax na. yow fi ngay taxaw duma fa taxaw fi ngay toog duma fa toog mënuñu faa toog ndax bokkuñu level. Mm-hmm. Keina man je suis intellectuel pour une deuxième fois man erreur bi ma def bi ma def bi ma njëkk a def mooy bi ma leen xamee yéen yéen waruma leen sax xam man samay xarit ñëpp xam nañ leen 12 ans may ànd ak ñoom mosuñoo am kaay ma rey la sama yaay tey mooy première fois mu ñëw nit ñëw sama kër te ñoom Aïcha Correa ñëwuñu taaj ma tey sante ah boo bëggee ma war la message yi man maa ne Aïcha Correa na ñëw sama kër dégloo li ma lay wax de rëy làmmiñ dafa am wax dëgg am te tey dégloontewul kay naa yaa gën a dégg say xarita la jow waaye buggoo leen accuser man ngeen yàpp kon sama yaay ma mayul fu ma waxee rek te yéen tamit da ngeen a ñëw def seen coalition jaay rëy làmmiñ mayoole ma fu ma waxee waaye bu ma waxoon rek ku ci nekk di nga génnale yow kay naa yow man bu ma waxoon tey yaa ay sokoréa fii ngeen waaye yéen safu leen di ndax da ngeen di yàqante Afrique xëy àndaat yéen loolu safu leen ndax bi ma nee ci groupe bi ay sokoréa du toog ba kaa kay naa wala Fida Mbaye soxna Njaay dafa tëb ne bu ko waxati ndax ay sokoréa wa toog ne kay naa star bu perte la fu day àbb yére buy jouer film nawloo ma la yow jëkkër parce que wax yow seetlu ko boo yoree koy duulal da koy uti. dina ñëw duulal. da may déglu maanaam da may déglu. maa ngi lay déglu da may déglu wala wala. doo fen ba pare di rëy laam da ngay noppi. mais rëy laam suuna bi daa ma yaa ngi fi maanaam preuve yaa ngi fi. man lu ma la duulal laa ko dafa nànk. waaw maa ngi déglu preuve yaa ngi fi. nga ne sama papa dafa may ñaata un million te jarul ñu wax damay àbb yére yow maa la tamit. da nga dégg ma ne. da nga dégg ma ne da nga am problème cent mille francs Sëriñ Saliou ku ko yaakaar doo doon dulkat wala nga yaakaar ko ñu lay tàjtee sant seen kër beneen vocal bu ñëwaatee naa teg si la ba sa kër du sànq wax naa li ma lay wax defal très attention ci man maram defal très attention ci man maram defal attention ci man maa ngi la wax naa la ko ñetti yoon nag. Ayşe Koreyan. Ayşe Koreyan. Ayşe Koreyan. waaw ba tey waaye damay àbb yére ñoom ñoo ko wax waaye bi ma toogee de waxuñu ko bi ma toogee ko te man sax yow maram wax ji dafa war doy wax ji na jeex dégg waaw kay maram merci merci pour lépp lépp lépp lépp yow da am fit sax yow maram am nga fit yow yow yow da ngay toog man di wax nii ay di ma sànnante ay nii di di ma sànni vocal nii may wax yow ngay wax yow maram yow waroo wax la yow maram am nga fit de yow ok baax na yow fi ngay taxaw duma fa taxaw fi ngay toog duma fa toog mënuñu faa toog ndax bokkuñu level naa man je suis un intellectuel pour une deuxième fois man erreur bi ma def bi ma def bi ma njëkk def mooy bi leen xamee yéen yéen waruma leen sax xam man samay xarit ñëpp xam nañ leen 12 ans may ànd ak ñoom mosuñoo am kaay ma rey la sama yaay tey mooy première fois mu ñëw nit ñëw sama kër te ñoom Aïcha Correa ñëwuñu taaj ma tey sante ah boo bëggee ma war la message man maa ne Aïcha Correa na ñëw sama kër dégloo li ma lay wax de rëy làmmiñ dafa am wax dëgg am te tey dégloontewul kay naa yaa gën a dégg ni say xarital la jow waaye buggoo leen accuser man ngeen yàpp kon baax na sama yaay ma mayul fu ma waxee rek te yéen tamit da ngeen a ñëw def seen coalition jaay rëy làmmiñ mayoo mayoole ma fu ma waxee waaye bu ma waxoon rek ku ci nekk di nga génnale yow kay naa yow man bu ma waxoon tey yaa Aïcha Correa fii ngeen waaye yéen safu leen di ndax da ngeen di yàqante Afrique xëy àndaat yéen loolu safu leen ndax bi ma ne ci groupe bi Aïcha Correa du toog ba kaa kay naa wala Fida Mbaye soxna Ndiaye dafa tëb ne bu ko waxati ndax ay Correa wa toog ne kay star bu perte la fu day àbb yëre buy jouer film nawloo ma la de yow eh, da may déglu maanaam da may déglu. maa ngi lay déglu da may déglu wala wala. doo fen ba pare di rëy laam da ngay noppi. mais rëy laam suuna bi. yaa ngi fi maanaam preuve yaa ngi fi. man lu ma la duulal laa ko dafa naan fi. waaw maa ngi déglu preuve yaa ngi fi. nga ne sama papa dafa may ñaata un million te jarul ñu wax damay ab yére yow maa la tamit. da nga dégg ma ne. da nga dégg ma ne da nga am problème cent mille francs da nga am taali ku ko yaakaar doo doon dulkat wala nga yaakaar ko ñu lay tàjtee sante seen kër beneen vocal bu ñëwaatee naa teg <laughs> si la ba sa kër du sànq wax naa li ma lay wax defal très attention ci man maram defal très attention ci man maram defal attention ci man maa wax naa la ko ñetti yoon nag. 不会，不会，不会，不会呀！ waaw ba tey waaye damay àbb yére ñoom ñoo ko wax waaye bi ma toogee de waxuñu ko bi ma toogee waxuñu ko te man sax yow maram wax ji dafa war doy wax ji na jeex dégg waaw kay maram merci merci pour lépp lépp lépp lépp yow da am fit sax yow maram am nga fit de yow yow yow damay toog man di waxal nii ay di ma sànnante ay vocal nii di di ma sànni vocal nii may wax yow ngay wax yow maram yow waroo wax la yow maram am nga fit de yow ok baax na. yow fi ngay taxaw duma fa taxaw fi ngay toog duma fa toog mënuñu faa toog ndax bokkuñu level. naa man je suis un intellectuel pour une deuxième fois man. erreur bi ma def bi ma def bi ma njëkk def mooy bi ma leen xamee yéen yéen waruma leen sax xam man samay xarit ñëpp xam nañ leen 12 ans may ànd ak ñoom mosuñoo am kaay ma rey la sama yaay tey mooy première fois mu ñëw nit ñëw sama kër te ñoom Aïcha Correa ñëwuñu taj ma tey sante ah boo bëggee ma war la message man maa ne Aïcha na ñëw sama kër dégloo li ma lay wax de rëy làmmiñ dafa am wax dëgg am te tey dégloontewul kay naa yaa gën a dégg ni say xarital la jow waaye buggoo leen accuser man ngeen yàpp kon baax na sama yaay ma mayul fu ma waxee rek te yéen tamit da ngeen a ñëw def seen coalition jaay rëy làmmiñ mayoo mayoole ma fu ma waxee waaye bu ma waxoon rek ku ci nekk di nga génnale yow kay naa yow man bu ma waxoon tey ya ay chocoria fii ngeen waaye yéen safu leen di ndax da ngeen di yàqante Afrique xëy àndaat yéen loolu safu leen ndax bi ma nee ci groupe bi ay chocoria du toog ba kaa kay wala fi naa mbay soxna Njaay dafa tëb ne bu ko waxati ndax ay chocoria wa toog ne kay star bu perte la fu day àbb yëre buy jouer film nawloo ma la yow eh! danga may déglu maanaam danga may déglu. maa ngi lay déglu danga may déglu wala wala. fen ba pare di rëy laam ne dangay noppi. mais rëy laam si wala. yaa ngi fi maanaam preuve yaa ngi fi.